Maguette Niang lan mooy seen jafe-jafe. non Maguette Niang chauffeur ambulancier au centre de santé de Mbacké. Mhm. souvent les gens dañuy dégg ñuy critiquer les les ambulanciers mais problème bii moom man la arrivé c' est pas une première fois c' est la deuxième fois. Mhm. nga yeb malade. Mhm. muy muy des accidentés. nga xëy raxas oto bi yow ci à l'hôpital ba mu set. nga dem jëli un accidenté sur la route. déplacer transporter ko yóbbu ko à l'hôpital retourné nag dëpp jaar ci station yi. station une grande entreprise. ci secteur pétrolier. waa këram ñoom ñooy def loolu nee na ñoom du ñu raxas ambulance. même ñun ban Sénégal la ñu nekk. loolu moom moom moom metti nii. te du benn yoon rek moom moo du benn yoon bi. c' la troisième fois bii nii. boo xam ne toujours ma jaar ci station bi. et puis ñaanu ma. avec de l' argent. ni leen ñaata laay fay pour ñu raxasal ma. mais même bu fekkente ne ñoom bañ nañ loolu. mais ñoom. li ñuy liggéey ñoom am nañ droit ñoom raxas war nañoo raxas oto. Mhm. te man laa yore. Mhm. te ambulance bi fan la mais ñoom mhm. bi fan la bokk. ambulance bi bu centre de santé bu Mbacké la. étatique la. voilà du moom moo war a wax ak le secteur pétrolier. parce que lii c'était pas du tout sérieux. oto bii nii c'est pour tout le monde. kenn kenn ñaanul yàlla koy dugg si mais ku am jafe-jafe ku nekk si oto bi ngay dugg ñun ay chauffeur a ko yore suñuy moromi chauffeur ñu fekk ci kaw tali te suñuy moromi chauffeur la ñu fekk ci station yi tamit ñu di leen laabeel léegi nag oto bu yàpp malaat wàccin ña raxasal ma ma fay nga ne duñ ko def GF ñoom ñoo lànk ne duñu raxas loolu ma retourné jaar Elton ñëwaat ne leen ñaata la man ba ñu ma fay ba junni mm. parce que man lii laay liggéeyee